honorable dernière question mel ni Sénégal dafa nar a euh, dem final Coupe d'Afrique des Nations ndax bëgg nga football. waaw man bëgg naa football trop parce que man dama doon jouer euh, nekkoon capitaine d'équipe sama dëkk donc ku gis kii bi dina xam li may dina dina comprendre bu baax li may wax euh, bëgg ko nekk un féru du du football soxla ko lool ba pare aussi di ko seetaan donc dañu sant yàlla sant yàlla parce que man dama jàpp ni. football léegi euh, du du du bal bi rek mais li muy indi maanaam ci concorde des cœurs gis nañ keroog bi ñuy gagné demi-finale bi gis nañu Sénégal gis nañu Dakar ni nit yi génne euh, vraiment fàtte peut-être seen problème ñenn ñi nga xam ne tey peut-être amoon nañ problème financier wala lu mel ñu fàtte ko ngir football bi donc football mën na indi te euh, loo xam ne ñëpp dinañ ci kontaan donc ñu ñaan yàlla en tout cas comme yàlla def nañ passé nañ demi-finale bi. ñu jublu ci final bi nga xam ne c'est le vendredi prochain euh, muy entre le Sénégal et l'Algérie euh, man nag Algérie équipe bi ma xaw a ragal la waaye euh, gëm naa ne tey jii xale yi engagement bi ñu am ni ñuy génne ci demi-finale bi gëm naa ni dinañ mën a indi coupe te bu ñu indee coupe bi aussi je crois que sant yàlla la parce que li ñuy yàgg bëgg donc man ma may ñaan sénégalais yi képp koo xam ne mën nga ñaan euh, yéene bi ak lépp ñu fexe ñaan en tout cas pour que coupe bi ñëwaat fii bu ñëwaatee fii je crois que Sénégal moo ci gañe c'est le peuple sénégalais moo ci gañe euh, sans compter nag euh, sur le plan financier li nga xam ne mën nañu indil mais aussi suñu joueurs yi nga xam ne sax ñu ngi fii parce que su boobaa ñi nga xam ne c'est des recruteurs dinañu dem vers le Sénégal di xool kat. Sénégal bi moom moo jëm coupe certainement donc am ay xale yoo xam ne ñu ngi foofu di football tey nañ dem ñu seet leen su le terrain. jàpp naa ne 1-0 euh, en faveur du Sénégal incha allah rabbi ñu ngi kon yaa ñu ngi koy ñaan yàlla mu defal ñu ko. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di sant yéen it di sant euh, Tawfekh Production euh, ci seen déplacement bi te yéen ngi def aussi liggéey bu baax parce que liggéey bi ngeen di def mooy liggéey mooy communication information parce que loolu bu amee ci dëkk rek. Euh, day tax dëkk nit yi gën a xam li xew parce que sans la communication munoo xam lu xew te yéen nag yéen ci yëngatu vraiment fekk naa leen fële keroog ngeen ñëw fii aussi di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan ngeen dem ba am li ëpp li ngeen yaakaar ci ci seen euh, Tawfekh Production bi en tout cas di leen ñaanal yàlla jàmm di leen encourager ci li ci li ngeen nekk asa asalaamaaleykum mu nekkoon euh, entretien exclusif bi nga xamante ne honorable député Aboubacry Diallo moo ñu ko baaxee woon fii ci assemblée euh, nationale doon revenu jëm ci euh, actualité nationale ak tamit jëm ci lépp jëm ci tamit li nga xamante moo di diaspora plus moom muy député diaspora la département Amérique Océanie wax dëgg yàlla maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal internet yi nga xamante ni mu ni saa ne ñu ngi ñuy suivre du ñu bàyyi xel Serigne Moutala Gueye moo nekkoon ci caméra bi ak ci montage bi Moustapha Thioune nekkoon ci micro bi